Eh, ñu ngi nuyu suñu mbokk julit yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak njéggaluk suñu borom ak yërmandeem tey nag ñu fas ñëw waxtaan ak yéen ci eh, arash ci aras kan mooy aras ak lan mooy arash bu dee baatub arash muy kalimatul arash ñëw na ci alquran lu ëpp fanweeri yoon aaya tamit ñëw na ci alxuraan lu ëpp fanweer yoon forme yi ko yàlla indee ci alxuraan tamit génnul baat yi al arshi arsha arshu arshun arshaha arshuki arshuhu urushiha maarushatin yarishuuna ci forme yooyu la ko yàlla tudde ci alxuraan bu nekké batub al arshi man nañ ci jël exemple ci aaya bi inna rabbakum allahu khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma stawa ala al arshi yughshi arsh yuxshi allayla annahaar يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف آية 54 بودي العرش يجلتي اكزامبل من الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا سوره غافر ايه 7 بودي عرش من نانتي جيل اكزامبل بارينا لوم نيو تي الفران من نانتي اندي اي اكزامبل وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء liyablu liyabluwakum ayukum ahsanu amala kon arshu arshu arshu la woon waaye arshuhu li tax mu wax ko xoo gi damir gi day delluwaat ci sunu borom ah, Hud suratu Hud aya 7 mën nañ cee jël beneen exemple lu mel ne falamma jaat qila hakada arshuki qaalat ka annahu hu ca suratu namli aya 42 bu dee arshun mën nañ ci andi exemple lu mel ne إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سورة النمل بتاي آه، آية 23 بودي عروشها من أنت أندي example تي بقرة آية 259 كل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها نيونا تي كهف تمت آية 42 moom moom urusha ñëw na tamit ci suratul xajji aaya 45 bu dee marushatin ñëw na ci suratul an'am ñaari yoon même aaya bi 141 wa huwa alladi anshaa jannatin marushati wa xayra marushat bu dee yarishuuna ñëw na ci suratul naxli aaya 68 wa awxaa rabbuka ila naxli an ittaxisi min aljibali buyootaw wa min alshajari wa mimma yarishuun ñëw na tamit ci laaraaf aaya 137 alxarsu nag am na aaya yu mu ñëw ci alxuraan yu bari am na ci yoo xam ne yàlla arsu rahman la ci jublu mooy arasam waaye am na ci yoo xam ne yàlla daf koy melal comme sarirul maliki mooy lalu buur loolu la koy nuróoleel am na ci yoo xam ne da koy melal comme lu kawe wala lu yëkkatiku bu dee yi mu melal comme sarirul maliki mën nañ cee jël exemple lu mel ne wa rafaa abawayhi ala al arshi ca suratu Yusuf aya 100 euh, ak it mën nañ cee jël exemple lu mel ne wala arshun azim ca naml ak falamma jaat qila hakada arshuki ak qala nakiru laha arshaha ayu yëpp buñ ko xoolee baatub arsh suñ borom daf koy melal lalu buur kon bu ñu jàngatee dafay mel ne sariru malikati saba sammaahullaahu arshan muy lalu buuru saba muy balxiis suñ boroom melal na ko comme arsh lu mel ne maarushatin ak yarishuuna ak urushiha exemple huwa alladi ansha jannati maarushati wa gayra maarushat ak wa dammarna ma kan yasnau firaun wa qawmuhu ma kanu yarishuun ak aw kalladi marra ala qaryatin wa hiya xaawiyatun ala urushiha yadulluka bi anna al arsha huwa الارتفاع والعلو في اللغه لولو داف داف لي تكال ني ارس يالا داف كوي ميلال فوفو كوم لو ييكاتيكو لو كاوي كون باتو العرش آه بروم ميلال نكو دي واخ تي عرش موم واي ميلال نكو كوم لو ييكاتيكو لو كاوي واي ميلال نكو تاميت كوم لالو بور مسافه العرش ذكر ابن كثير وغيره ان بعد ما بين العرش الى الارض مسيره 50 الف سنه وتسعه خمسون ألف سنة Ibn Kathir ak ñu bëree bëri ñi ngi wax ci distance su diggante aras ak suuf si ñu nekk nee nañ boo jóge woon ci suuf si jëm aras di ko voyager di nga durée ci yoon wi cinquante mille ans mooy juróom fukki junni at nga soog a àgg en arash an aliin karamallahu wajhahu qaal nuuru shamsi juz'un min sab'iina juz'an min sab'i min min min nuuril kursiyi والنور الكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجب العرش عظيم والله أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجلس على العرش ولا يبقى من العرش قدره أربع أصابع جلنا سيدنا علي من ليرو جنتبي bu ñu xaajee leerug aras soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon benn xaaj ba mooy leerug jant bi kiiraay suñu borom bu ñu ko xaajee juróom-ñaar fukki yoon mooy leerug aras kon aras lu màgg la waaye suñu borom moo gën a màgg lépp ani nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna allaha yajlisu ala al arshi wala yabqa min al arshi qadrahu arbai asabih mu ne yonent sallallahu alayhi wa suñu borom bu toogee toog ga yàlla ca moom ca aras aras dara du ci dess lu toll ne ñenti baram mal farqu bayna al arsh wal kursi lan moy différence aras ak kursi euh al arsh fi al sarir al malik comme ni ma ko waxoon ci ginaaw amma arshu rahman azamu min asirati almuluki wa xurusihim bila shak bu dee aras ci niñ ko xamee mooy lalu buur lay signifié waye boudé arasu yàlla nak koku mom kenn mënu ko misal bokkut ak sax lali bour yi ni koku mom euh na ko koku mom amul ben sik saka قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله ابن عباس نينا كرسي موم موي كرسي موم موي موضع قدم الرحمن موم موي تاغو كايو ندغو سونو بروم واي أرس نك موم كين منوكو ناتالي كون أرس موم كين منوكو ناتالي أه أه إذا الصواب أن الكرسي موضع قدمي الله والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى كيف لا يعرفه أحد إلا هو كون لغنى جبدال بني بغي خم موي كرسي موي تيغو كاي ندغو سونو بروم بودي عرس نك فلا سونو بروم يامو نكلا تيغو تيغي اي ندغوم تي عرس اك نان لا يامو تي عرس كوكو موم كين خمو كودول موم آه الاستواء على على العرش نك بسم برم تدو ذكر ذكره الله سبحانه وتعالى في سبعة مواضع في القرآن العظيم أنه فوق العرش تدنا في القرآن لطول تجروم جروم ياري برب فتنك تدنا فالاستواء على العرش وحنا مهم مغا تعرس تدنا كو في العراف آية 54 يونس آية 3 الرحد آية 2 طه آية 5 الفرخان آية 59 سجد آية 4 الحديد آية 4 قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى سورة طه من يلا من يمو ولا من توك توك بيلا كموم كعرش الاستواء نك بنكوه باتو الاستواء وهو استواء يليق يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وليس مثل استواء المخلوقات wa amma an kayfiyati istiwaihi kooku moom falaa yajuusu at tafkiru fiha fa la ah, tasilu la tasilu ila xaqulina te wali anna allaha tabaraka wa taala lam yazkuruha ah, sunu borom nee na yemoo na ca aras yemoo ga yàlla ca ak màggam ak rëyam moom rek moo ko xam waaye nag bokkut ak yemoo gi ñu xam ci mbindeef yi déedéet bokkut loolu bu dee melokaan ba fa yemoo nag ba fa toogee bala ba mu fa nekkee kooku moom daganul sax ñu ciy ndax suñuy xel agufa te suñ borom it tuddu ko nak ci alquran وقد دخل رجل على الإمام مالك فسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الإمام الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل بدعة am na ko mës مالك ñëw ci imam Malik ne ko damay laaj ci waxi suñ borom ñi wax ne ma nga aras ma nga aras naka la imam malik ne ko batu bi yamo mom ñepp xam nañ ko kian umpalew ko ken reero ko xalaat ko nak euh, melakon bam fa defé nak euh, lolu mom suñu xel agu fa tayit xalaat ko mom sax jaaduwul nak gem ko nak lu war la waaye laaj ko mom bid'a la ta sax yow gisuma la ne da nga bok ci nitu bid'a yi euh, dar koy dàq ci jotaayam sunu borom melal na aras ci mag jaglel ko tedd nga akuk yëkkati wax ne wa huwa alxafuur alwadud dul arshil majid moom mooy aji jéggale ji aji soppee aji ki nga xam ne mooy borom aras mu tedd mi kon foofu melal na aras ak tedd suratul suratul buruj aya 15 wax na it fa taala allahu almalikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim foofu it melal na fi aras ak tedd nga almuminuun aya 116 wax na it fa in tawallaw faqul xasbi allah لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم كن فوفيت ملل نفي أرس أجمج التوبة آية 109 مكان العرش فن لا أرس نك لقوله, تع... لقوله تعالى وكان عرشه على الماء سنو برم سبحانه وتعالى دفوه أن أرس نيني تيكو أندخ قال صلى الله عليه وسلم إن العرش كان على الماء فلما خلق السماوات جعله فوق السماوات وجعل السحاب كالغربال للمطر walawla dalika la xarafat al ard sallallahu alayhi wa sallam nee na aras mi ngi ci kawum ndox sunu borom bi mu bindee juróom-ñaari asamaan yi daf ko def ca kaw juróom-ñaareelu asamaan da ko def ca kaw ca kaw juróom-ñaari asamaan yi mu def niir yi muy nuance bi mu nekk genre tame ci diggante taw bi ak suuf si nga xam ne budul woon ak nuance bi taw suuf si dina lóor ak ndox ku ñuy wax ibnu abi hatim nee na wax na ci téere bu ñuy wax bada bada zuhur في وقعه الظهور نحن سنو بروم بندنا عرس تي ليرم تقاليكو اك كرسيو امنا نين تي دخيو كور دخو لير دخو سوارا دخو غلاس كوير اك دخو ندخ ام اي ملائكة يكور دي سابال سنو بروم سبحانه وتعالى تسال الله عليه وسلم نحن بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم sallallahu alayhi wa sallam nee na asamaan si tiim àddina ak asamaan si ci topp boo ko doon voyager di nga duré ci yoon bi cinq cent ans juróomi téeméeri at te asamaan su ci nekk noonu la soree ak digganteem ak moroomam nee na juróom-ñaareelu asamaan ba nag boo fa déparé bëgg a dem kursi yu di nga duré ci yoon wi cinq cent ans muy juróomi téeméeri at bo joge kursi yi jëm aras di nga jox di nga jot am ndox ci digënté bi ndox momu digënté ma kursi yi bo joge kursi yi dem ci ndox momu di nga duré ci yoon wi 500 ans mu juróomi témérat ta aras mo nek ci kaw ndox momu ta yàlla mo nek ci kaw aras ta dara bu ko ci seen jëf batay lan mo nek ci kaw aras wa mimma huwa mudaxarun fawqa al arshi kitabun yastabshiru bihi kullu muwahhadin ففي المتفقين عليه alayhi an هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت فهو مكتوب عنده فوق العرش بكنا كي سكر ينغ خمنا مغتا كو أرس سنو بروم جلنا كي أبو حريرة من ديغنا يندب صلى الله عليه وسلم وخنا سنو بروم avant muy bind bindé fi bo démé sax ci yéne riwaye dalay wax na ñaari junni at 2000 ans avant muy suñu borom bindoon na ab téere teg ko ca kaw aras téere ba lan la ci suñu borom bind mooy inna rahmati sabaqat ghadabi sama yërmande jiitu na sama mer nee na loolu rek la ca bind daal koy teg ca kaw aras ibnu xatam nee na yàlla moo ngi bind arash ci zumrut xadra zumrut xadra nag xajirun karim euh, doj la bu tedd bu verte ci la suñu borom bindee arash yàlla utal ko ñeenti tànk ci yaaxootu xamra euh, ci wurusu xonq yi euh, yàlla euh, utal ko ñeenti tànk ci yaquutu xamra diggante tànk bu ci nekk ak moroomam gudde na yaatoo na tey boo ko doon voyager jógee ci tank bi dem ci beneen tànk bi di nga durer ci yoon bi soixante-dix mille ans soixante-dix mille ans di nga ko diire ci yoon wi maanaam juróom juróom juróom ñaar fukki junni at di nga ko diire ci yoon wi nga soog a ci beneen tànk bi tànk bu ci nekk noonu la guddee Euh, yaatuwaay ba tamit noonu la guddee boo doon wër aras di nga duré ci yoon wi soixante-dix mille ans nga soog a jot yamukaay ba euh, euh, bu ko defee nee na forme lal la yor am juróom-ñetti malaayika yu ko yanu nga xam ne aras dafay mel ne ab xubba ci kaw malaaka yi kon ñu xam ne aras ay malaayika ñoo ko yanu ak la muy diis diis yàlla defal na leen kàttan ba ñu mën koo yanu والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية بابناك واختلف العلماء في وصف العدد آه، في في وصف العدد ثمانية وما المراد به على التعديد فقيل هم ثمانية صفوف من الملائكة تحمل عرش الله ومنهم من قال آه، ثمانية ملائكة وقيل إنهم ثمانية آلاف وقيل ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدد الإنس والجن وحملة العرش يسبحون الله ويؤمنون به ويستغفرون للمؤمنين لقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا mu ne samaanitu boobu yàlla wax ci alxuraan nañu yenu aras juróom-ñett lañ borom xam-xam yi dañ ci dañ cee uute ndax am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne nañ juróom-ñetti sàppe la ci yàlla jublu juróom-ñetti sàppe malaayika juróom-ñetti ran ci ay malaayika ñoo yenu aras am ñu ne déedéet juróom-ñetti malaayika kese la am ñu ne déedéet juróom-ñetti junniy la am ñu ne déedéet juróom xaaj la te xaaj bu ci nekk baree nañ comme boo boole woon nit ak jinne noonu lañ tolloo waaye daal ñeeno aras dañuy sabal yàlla gëm ko tey jégalu ñi gëm yàlla ndax sunu borom moo ko wax ne ñi gëm ñi nga xam ne ñoo yéenoo aras ak la ko wër yëpp dañuy sabbal sunu borom ba pare gëm ko tey jégalu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. قال الله تعالى أيضا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بوخول الملائكة دنجي جس دنيو ور أرس بيكو بفرنك دي سبال سين وروم تليكو سمت كيلفو كون ملائكة ينو عرس بني سكنكو تي الشيخ الخديم خادم رسول العارف بالله موم نينا ملائكة يو ويت لنيو مانام جروم نيت لنيو عندنا سخ سيني تور نينا سيني تور توري ملائكة ينو عرس موي دات ويائل dat fa yaa il sat fa yaa il atma yaa il kam ka yaa il sas kam ka yaa il sas ma yaa il zan yaa il nee na juróom ñetti malaka yooyu la dat wa il dat fa yaa il sat fa yaa il atma yaa il kam ka yaa il sam ka yaa il sas ma yaa il zan yaa il nee na juróom ñetti malaka yooyu ñoo aras nee na ku mokkale seeni tur bala ngay faatu da nga gis sa kër ci aljana même malaaka yi sax buñu bëggé dolé ku ay maqama ci yàlla ci barke malaaka yoy lañu koy ñaan ndax yàlla dolli seen maqama ndax malaaka yoy daraaje yi ñu amé ak jege gu ñu jege yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne hajat qasaidi qulubal xamala lil arshi wa hiya bushra lil kumala nee samay xasida yëngal na xoli malaika yi nga xamne ñom ñoo yanu arash an jabir ibnu abdillah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من من ملائكة من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام jëlee nañ ci jaabir mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na digal nañ ma ma waxtaanal leen ci kenn ci malaayka yi nga xam ne ñoo yenu aras nee na ma malaaka moomu am na ci malaaka moo xam ne karawu nopp bi maanaam nopp bi ak doq gi boo jóge woon ci nopp bi war a dem ci doq gi di nga duré ci yoon wi juróom juróom ñaari téeméer at maanaam 700 ans boo jóge woon ci nopp bi jëm ci doq gi di nga duré ci yoon wi 700 ans kon diggante boobu sore na wa fi lhadis al axar usina li an uhaddisa an malakin قد مرقت رجلاه الأرض الصابعة والعرش على منكبه وهو يقول سبحانك أين كنت وأين تكون nee amna malaka na nañ ma ma waxtaan ci malaka mi nga xamne mo yanu bok ci ñi yanu aras nee tànkam nur na ba ci juroom ñaarel bi suuf ta ay mbagam ma nga ci kaw aras ta mom fu mu toll ma ngay sàbbal di wax naan subhanaka ayna kuntu wa ayna takun al ars kon ñu xamne al ars huwa afqalul maxluqaati min aysu min aytul wasna al arsu saqful janna wa minhu tatafajjaru anhaaruha wa huwa kal qubbati ala al aalami wa huwa وهو آه، أقرب المخلوقات إلى الله وأعظم المخلوقات وأعظم مخلوقات الله أرس موغن ديس تلي يالا بنده أرس موي بالكون الجنة تدخي أجنة يب فلي جوغي أرس ميني من أب قبة تي موندو أرس موي بالكون موندو بي يب موغن جيغي يالا تلي يالا تلي يالا بنده تايت موغن مغ تي بنده في سنو برومي فعن أبي ذر الغفاري قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أيما أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا وفضل العرش على الكرسي كفضلة الفلاة على على الحلقة وفي ذلك دليل على كبر مساحة العرش آه، جلنا أنت أبا ذر من mu النبي صلى الله عليه وسلم نقول لن موغن آه، مغ ولا لن موغن ريك لن يواتي تيو من آية الكرسي daa demee yaa aba zar juróom-ñaari asamaan yi ak kursi yi boo leen boole woon sànni leen ci ab àll boo xam ne dara nekku fa day mel ne ab bul wala ab dërëm sax boo sànni ci ab àll na àll ba ëppee euh, euh, euh, juróom-ñaari asamaan yi ak kursi yu noonu la aras ëppee kursi yu kon aras lu rëy rëy la ndax aras dina jeex dina mës a jeex déedéet juróom ñaar yi bu lépp jeexee ñoom du ñu mës a jeex آه، سبع من المخلوق غير فانية العرش والكرسي ثم الهاوية وقلم والله والأرواح وجنة في ظلها نرطاه من جروم نياري دنيو مسجيخ من أرس الكرسي أك أجنة أك سورة أك خليبة غيالة دي بنده أك لوح المحفوظ أك روي لولموم لبي جيخ بندسيوي أكون آه، العرس لا يصيبه الفنا دو مسجيخ ndax aras dina yëngatu di jaayu waaw aras dina yëngatu dina jaayu عن جابر رضي الله عنه آه، آه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقد لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ من جل ننتي يونس صلى الله عليه وسلم من ارس جاينا ينغتو بسعد بن معاذ فاتو تكوك اب صحابي لو ماغ ماغ وقال الامام الذهبي وعن اهتزاز العرش بان عرش الرحمن هو خلق من خلق الله يعتز لما يشاء الله ان يعتز له امام الذهبي انا wax na ci yëngatug aras ak jaayug aras ak jaayug aras nee na aras day mbindeef la ci mbindeefi yàlla yi ku neex yàlla rek aras yëngatul la jaayul la na muy yëngatoo ak na muy jaayoo nag kooku moom yàlla rek ko xam te Serigne Touba moo tax Serigne Touba bu waxee lii jërul ngay weddi ndax nee na isa katabtum tazza arsul baqi wa sabahat malaikatu tibaqi nee na bu ma bindee rek aras dal jaayu malaaka yi sabal waxaat ne inna isa katabtum tazza arsul maliki wa sab wa tazza bi tasbihi kulla malaki nee na bu ma bindee bu ma rek aras dal jaayu malaaka yi jaayu dal sabal waxaat ne inna isa katabtum tazza arsha arsha dil jamali wa sabahat junud rabbi dil kamali bu ma bindee rek aras suñ borom mi dal jaayu malaaka yi suñ borom yi sabal aras ak kursi yi bu ci ëpp waxoon naa ko ci ginnaaw aras moo ëpp kursi yu inna arda samawati sabi ma hiya illa halqatun basitatun fi lkursiyi walkursi illa halqatun basitun fi saara wa ansihi saara ma hiya illa juz'un illa juz'un saghirun min al arshi kon loolu day tegtale ne aras moo ëppe lu bari bari kursi yu ndax boo jëloon juróom-ñaari asamaan yi dafay mel ne rek benn genre boule Euh, boo sànni ci suuf su yaatoo yaatu noonu suuf sa yi ëppee euh, bul ba noonu la aras ëppee euh, kursi yi kon mu ne it yaatuwaayu asamaan yi dafa mel ne rek asamaan ni mu yaatoo boo ko jëloon dugal ko ci biir kursi yi day mel ne rek benn bul boo sànni ci kaw suuf noonu la aras ëppee tamit kursi yu ci gàttal kon ñu xam ne it aras ميغي تي كاو آه، فردوس مو موتيم فردوس وفي الحديث ان العرش فوق الفردوس وهو اعلى الجنه كما في صحيح البخاري فاذا فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه وهو اعلى الجنه وفوقه عرش عرش, عرش الرحمن ومنه تتفجر ومنه تفجر انهار الجنه من اراس ميغي تي كاو فردوس فردوس مو مو غنا كاوي تي motax yantou sallallahu alayhi wasallam waxne bu ngeen ñaan yàlla ñaan leen ko firdawsi ndax firdawsi mo nek ci digg aljana ta mo gëna kawe ci aljana yi ta aras mo nek ci kawam ta dexe aljana yi fa lay joggé sallallahu alayhi wasallam neena arwahu arwaxu inda allahi fi xawaasili tayr xudrin tasrahu fi anhaari aljanna haythu shaat thumma tawi ila khanadila taxta alarshi nee na ruuxu shuhadaa sunu borom daf ko def ci doqi picc yu vert yo xamne dañuy nek ci bir dexe aljana yi di for ba seen waxtu tëdd jote ñi dem ci ay lampe yo xamne dañ ko tak ci ron arash moo tax mu ne qala al imam al ashari wa suila bahd al hukama an ma'din al arwah ba'd al mawt in arwah al anbiya عليهم السلام في جنات عدن وأرواح الشهداء في الفردوس وسط الجنة في حواصل طيور خضر تطير في الجنة إلى حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كن laaj na imaamul ashari laaj na kenn ci xokamaaw yi na ko fan mooy saxukaay yu ruux yi ginnaaw bu ñu faatoo mu ne ko bu dee ruuxuk anbiyaaw yi jannatu adnin ruuxu shahadaaw yi jannatul firdawsi te jannatul firdawsi mi ngi nekk ci digg aljana suñ borom def ko ci doqi picc yu verte yoo xam dañuy naaw ci biir aljana fu leen neexee bu seen waxtu tëdd jotee ñu dal di dem ci ay lamp yoo xam dañ koo takk ca ron aras boo demee ci circul jawahiri bu cheikhul xadim xadim rasul di ko fekk wax ji fan la jant bi di sowee عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستخر لها آه، سورة ياسين آية 38 نلاجنا يونس صلى الله عليه وسلم ليسون برا وحنا جنتبي أم ديدو بجيب سحوكايم متخوفة ملاك فن موي سحوكاي جنتبي منكم مستقرها تحت العرش أم تي رواية بخاري المسلم ودمي دنجي فك فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش Euh, mu ne ko saxukaayam mooy day dem ba ca roon aras mu daat fay sujoot sofa soowee fa ba yàlla jox ko ndigal mu daal di eh, siggi donte am na foofu ay ixtilaafaat yu bari waaye daal li gën a bari ci li ñu wax mooy jant bi roon aras lay sujoode euh, fa ba yàlla jox ko ndigal mu daal di siggi di fenk allahu taala alam ñu xam ne tamit doomu aadama bi bu fenee fen wi day yéeg waxoon naa la distance aras ak fii ci suuf cinquante mille la boo ko doon voyagé waaye nit ki bu fenee rek fen wi day dal di yéeg dem ba àgg aras ci lu gaaw daal di taxaw présenté wu ci kanaw yàlla ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala ne ko yow sama borom man mii maay fenu diw diw doomi diw ak diw moom ma fen ki ma fen nag yàlla na ko rëbb daal di ñaan suñ borom mu rëbb la suñ borom wax malaaka yëpp ne ko rëbb daal lay bindal nag ci ay ñaawteef lu toll ne juróom euh, lu tol ne juróom lu tol ne soixante-dix mille ñaawteef manam juróom ñaar fukki junni ñaawteef te ñaawteef bu ci nek dina toll ne doju uhud motax serigne touba di wax ne isla yaminu shaxsu illa kharajat kisbatuhu min fi thumma saadat fatablaqu al ala makan thumma taqulu ana kisbatu fulan kon lolit lu mata a bàyyi xel la ñu bàyyi xel ci ne fen mom lu lu lu lu lu baaxul la amna ben histoire bu yeme tamit bo xamne dina koy faral di netali bo demé ci cercle jawaahir bu Cheikhul khadim khadim Rasul ding ko fekk من حكاية وفي الخبر أن الله تعالى لما وصف العرش بالتنظيم بقوله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وسوس في نفس العرش العظم وعجب بأن الله تعالى لم يخلق مثله في العظم فخلق الله حية اسمها طيحان فأحاطت بالعرش سبع مرات وقيل ألف مرة وبقيت صبرة عظيم وما اليوم إلا والعرش, إلا والعرش يحوذ بها أربعين مرة مخافة منها أن يسلقها وقيل لها ستمائة آه، ألف وجه وفي كل وجه مثل الطباخ مثل طباخ الدنيا وهي محيطة بالعرش أربعة آلاف أربعة آلاف مرة آه، فما اليوم إلا والعرش يعوض منها مخافة منها أن يسلقها ورأسها من الدرة البيضاء وجسدها من الذهب لا يعلم تلك الحية إلا الله تعالى ولها أربعة ألف جناح جناح من أنواع الجناهر من أنواع الجناهر يسبحون الله عز وجل وعلى كل ريش من أجنحتها ملك قائم بيده حربة أي رمح من من الجوهر يسبحون الله تعالى ويقدسونها فإذا صبحت هذه الحية يغلب تصبيحها الملائكة فإذا فتحت هذه الحية فها التقمت السماوات وفيها من العجائب غير ما ذكرته من نتلبي سنو بروم بيمو بيند ارس ملال كو تي اك ماغ اك ري دا فا تاغ ارس دال لي واخني امول بن بور بودول موم موم مي موم ارس مو ماغ مي نيغا خامني بو دافان ال عظيم ماغ جي ديدل وات يالا واي آه، عظيم لا ديف نيغا خامني دامير جي ديدل وات تي ارس نينا بي ارس ييغي لولو غيسنا سنو بروم تاغ نكو ملال نكو تي اك ماغ aras dal di yemu yek bopam dal ne kon dal man yalla bindul lu gëna a rëy lu ma ak lu melne man kon netal bi limi jangala moy suñu borom bëggul kuy ngand ngan lu ak kuy réere lu ak kuy yek sa bop neena bi aras yegge bopam dal di commencé ngand lu suñu borom dafa dal di bind ben jaan ju tuddu tayhan jaan ju tuddu tayhan tayhan nak ñew na wër aras laxasu aras juroom ñaar yoon am na ñu ne ñeenti junni yoon la ko laxasu te am na benn jel boo xam ne sax des na te wëragul kon kooku xam nga ne moo ëpp aras foofu nga xam ne jaan ji euh, sunu boroom dafa defal na ko sept cent cent mille xar kanam ji am na juróom benn junni euh, juróom benn junni xar kanam moom la jaan ji am juróom benn junni kanam euh, nga xam ne kanam gu ci nekk rek tol na ne yatuwaayu àdduna moom moom kanam ci kanamam yooyu nga xam ne amul benn bis bu dul ne aras dina muslu ci yàlla mu musal ko ci jaan ji dina musal ci yàlla ñeent fukki yoon ndax ragal gu mu ragal jaan ji ak jaan ji ëpp gu mu ëpp nee na sunu boroom defal na euh, jaan ji bopp boppu jaan ji sunu boroom mi ngi ko bindee ci wurusu durru bu weex nee na yaramu jaan ji sunu borom mi ngi ko bindee ci euh, wurusu euh, xonq nee na jaan ji am na ñeenti junni laaf yoo xam ne ñu ngi ko defaree ci wurus nga xam ne laaf yooyu noonu dañuy sàbbal suñu borom te laaf yooyu donc donc bu ci nekk ci biir laaf ya am naa benn malaayika bu fa taxaw di sàbbal suñu borom benn malaayika bu yor ab xeej taxaw fa di sàbbal suñu borom di ko sellal waaye jaan ji bu sàbbalee mooy gën a xumbale gën a ëppale malaaka yooyu nga xam ne li ñuy bari bari nekk ci ay laafam nekk ci ay donxam yor ay xeej di sàbbal suñu borom jaan ji bu sàbbalee benn yoon moo leen di ëppale moom tayxaan nee na jaan ji bu ubbi woon gémmiñam juróom-ñaari asamaan yëpp dinañ dinañ ca xaj nee na jaan ji daal am na yeneen kiimtaan yoo xam ne sax kenn mënu ko tudd nee na ba loolu amee nag aras dafa daal di dal daal di xam ne suñu borom bind na lu ko ëpp léegi nag euh, fa waswasat fi euh, inda dalika fa waswasat fi nafsiha al azamatu aydan ñu ci loolu nag la daal di euh, aras daal di dal jaan ji daal di commencé ngan ngan lu momit kuma commencé lu dane kon man yalla bindu lu ma ëpp ndax man ma ëpp aras ta aras la yalla tagon ci girey kon man lu yalla bind man mal la ëpp jaan ji suñ borom natt ko muy dox mom tayhan mom jaan ji di dox bayam ci ben jaan juy nelaw jaan jamu fekk muy nelaw ma nga tuddu lam lam tayhan mi waron aras ñent junni yoon ñew fekk benen jaan ju tëdd di nelaw muy lam lam tayhan jaar ci bakkanu lam lam genn ci gimiñam ta lam lam yewut bi lam lam yewo malaaka yi wax ko ko ne ko jar jaan ju fi jaar dug na sa bakkan ba jaar sa gi ba genn ba dem te yewo ko lam-lam dak ko 500 ans juromi temerat pour bu ko japp def ko benn waye waaye mujjee ko jot ah bi lam-lam waté place am daldi di khalat xelam daal ah kon man li yalla bind mal ëpp ndax tay xaan mo ëpp aras aras la yalla tagon ci bind neena bi mu commencé reey reelu rek mom lam-lam mom benen jaan ji ci dess suñ borom natoka aw mar mu mar mar wu dem ci géejug maj boobu di fa naani bi mu demee ci géej ga commencé di naan rek amul lu may rek am mbottu génne ci géej gi mbottu mi mi ngi tudd marhum dafa ñëw rek daal koy def benn tibb daan na yow yàlla alhamdulillahi alladi razaqani luqmatan min al idami maa ngi lay sant ci tibb ba neex bi ma xéewalee dal di delluwaat ci biir géej gi waaye jaan mbott mi ba mu yégee ne lam la moo ëpp tayxaan te tayxaan ëpp aras mbott mi daal di commencé di rëy rëlu commencé di ngan na ngan lu yaakaar na lu yàlla bind moom moo lu ëpp géej gi ne ko moom maj bopp ne ko yow marxoom dalal yow mbott mi parce que yow lam-lam bi muy ñëw da ngaa génne ci sama biir dem wan na ko bi nga ko wanee da ngaa duggaat sama biir kon yow ak li nga wan ne yëpp yéen a sama biir kon réeréelu bu amee kay man maa war a réeréelu war a ngan ngan lu moom géej gi moom it daal di commencé réeréelu commencé di ndamb nam commencé di ngan ngan lu commencé di yëg boppam sunu borom daal di wax kenn ci malaaka yi benn malaaka bu ñuy wax salfax yaa yil ne ko demal nga wat sa bopp malaaka fan laay tooyale sama bopp mu ne ko demal ci géejug euh, maj boobu euh, bi malaaka mi ñëwee as géej gi benn as xaaju bopp bi tooy beneen xaaj ba ci des daal di wow koŋ géej ga jeex takk salfax yaa ilu moomu daal di dem delluwaat di delluwaat palaasam di dox far romb benn malaaka bu tudd abda yaa il abda yaa il ko waa yow salfax yaa ilu foo jógee ak looy dox mu ne ko man de sama boroom moo ma digaloon ne naa dem watu ji ah ma ñëw dem naa ci géej gu maj boobu as naa ko benn géej ga jeex na te sama benn xaaj boobu moo tey bisees tooyul salfax yaa il abd yaa il ne ko loo soxla woon ndox mu ne ko waaw mu daat koy tifli serete ko nga xam ne salfax yaa il moom dafa commencé woon di ndamu ak di rëy-rëylu ak di ngann nganlu ba muy delluwaat nag la taseeg abd yaa il abd yaa il laaj ne ko foo jëm mu ne ko sama borom moo ma digal naa watu dem naa ci géej bi maj boobu as naa ko benn as sama benn boobu sama benn xaaj boobu tooy na bisees tooyul abd yaa il ne ko ndox rek nga soxla mu ne ko waaw mu tëfli ko mu doon ak géej goo xam ne fa mu nekk ca suuf ca xóotaayu géej ga boo jóge woon foofa jëm ca kaw géej ga dinga nga duré ci yoon wi euh, lu toll ci euh, juróomi téeméeri at nga soog àgg ca kaw kon euh, foofu lu kawe kawe la nee na nag abda yaayul mii nag fa sabba abda yaayul fa qaala subhaana man sawra inda azamatihi azamul azama wa subhaana man qahara almaxluqina bil mawt wa xayun la yamutu abada subhaana man huwa wahidun faradun samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad فقال عبد يائل هكذا ربك لا لا هكذا غيره نين عبد يائل نك مو تخاو دال ديلوات لب سي الله تود اك سلام اك ماغام ريل كو نكو امول كين كولا غن ري امول كين كولا غن ماغ يا نوت مينديف ييب سي دي تا يو جورو كين تا كين جورو لا ياي كين ياي فرات ياي سمات سون بروم نكو هكذا سون بروم نكو سون بروم دال دي واخ ني صدق عبد يائل انا كذلك فقال عليه سون بروم نكو يا عبد يائل واخ نغا دغ noonu nga wax rek noni la bel waye waaye abda mom bu reey reey lu waton ngand ngand lu rek suñu borom dina bindat leneen lu ko upp kon dal ñu xamne ne arshu rahman huwa arshu huwa a'zam makhluqati llah huwa ala alma ma arshu rahman mo gëna reey ci li yàlla bind euh te ci kawum ndox la ko yàlla tek juróom-ñetti malaika ñoko yanu ay malaka wër ko di sabbal suñu borom ñeenti dex ñoko wër dexu leer dexu sawara dexu glace gu weex ak dexu ndox jant bi ron aras lay sujoote fa lay sowee ba yàlla jox ko digal mu sijji dal di fenk aras fa la sunu boroom euh, euh, yemoo kursi yi mooy tegu ko ay ndëggoom nam fa yemoo ak nam fa tegoo ay ndëggoom moom rek moo ko xam subhanahu wa taala ak namu mu yelle ca moom euh, aras moo ëpp kursi yu aras moo gën a diis ci li yàlla bind moo gën a jege yàlla ci mbindéef yi aras ku màgg ku tedd ku rëy la arasul azim arasul karim arasul aras am na ñeenti tànk yu ñu defaree ci wurus wu xonq yaaqutu xamra diggante tànk bu ne ak moroomam yaatuwaay ba soixante-dix mille ans la euh, teyit forme euh, lan la amee ci zumrut xadra la ko suñ borom bindee muy doj bu verte bu tedd xaras euh, moo tiim àjjana moo tiim monde bi yëpp moo tiim janatul firdawsi aras dara féetew ko kaw kudul yàlla diggante aras ak suuf si voyage euh, cinquante mille la leeruk aras it kenn mënta xam fu mu euh, commencé kon lii lañu leen andiloon ci loo xam ne man naa dugg ci xelum nit ci lu jëm ci wàllu aras na ñu am yeneen bind yoo xam ne danañ ñëw ci lu jëm ci wàllu malaayika yi ak lawhul mahfuz ak lu mel ne alqalam ak yu ni mel waaye tey bind bi lañ andi woon